la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha li maam Cheikh Fall wax noonu ko sëñ Moussa Ka rek nga xam ne maam Cheikh bi mu ñëwee xëyut xëy rek dafa ñëw bi mu ñëwee ci sëriñ bi dafa mel ne koo xam ne si fii nga gane jamono dafa daal di xam yittey sëriñ bi di ca xëy di ca yendu di ca gontu kon maam Cheikh Ibrahima Fall noonu mën na koo fay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 teel naa ñëw fii nga xamante ni mooy fii di ci kër sëñ Moustapha Moussa Ndiab si wàccaay gi nga xam ngay ngi koy waaj yóbbu àddee sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di ñu ngi leen di asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu ñëpp baax baax di ci siyaare bi ak nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa général des mourides waaye di ci teg kilifa sëñ bi itam te mooy sëñ am di mi nga xam ne mooy xalifa Baye Fall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 def seen buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, wala sax ci seen buntu ci sëñ Abdou Sakor ndax bi yéen de taalibe naxu leen la ilaha mbégte moo xam daal euh, mën naa ne mosuma ko am euh, di am yaakaar ak di ñaan rek mu yàgg ak taalibe yëpp ndax li lépp taalibe yi la rek ñun laan noor rek dañ jàll rek waaw nag dañ sant bu baax nag di sant sëñ sant bu ndax lépp moom la ndax lépp ma ko rek ñu gis mbooloo mi ren dafa yokk mbokk yi bëgg gi gën a yokk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 waaw ma doon jël seen alal lépp boole ko jox ma ma tàbbal ko kër maam Serap Fall. soppi yi ba bitim réew ñu ngi teewlu liggéey bi. fépp rawatina Italie France Espagne Angleterre Allemagne Europe gépp ak Amérique Afrique kenn du si ba Mali fépp Sénégal nag moo xaale wuñu leen kenn mënu kon yàlla yàlla fay leen daal ndax daal maa ñaan suñu borom ñëpp jariñu rek. فلا إله إلا الله لا إله kenn ku ci nekk war naa sedd sab xol waaye war naa dalit sam xel waaye war naa dolli nit sa njàmbaar ndax ki ko def jëmale ko ci magam ju tedd ji